kenn kazalika itam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi maman caabi féete leen ginnaaw yal na leen laaw bu dimbali ba ñu génn fa ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam maman tey nag euh, bu ñu waxee 7 septembre suñu xel dafay delluwaat ci 7 septembre 1935 ki nga xamante ne moo di Abdou juuf nekkoon nag ñaareelu président bu réew bu Sénégal ci la gane si àdduna donc lan nga retenir maman ci ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf Ah, le président Abdou Diouf euh, Thiaka Birame Ndoumbe mi ci wal xoox euh, ñi ngi koy souhaiter mhm. euh, joyeux anniversaire mhm. di ñaan mu dund téeméeri at yu teg ànd ak wér macha allah ñu ngi ñu ngi jàpp ci moom mhm. gis ko am personnalité Binta Rasoul exemple type d'homme d'état ci aristocrate bu mag a mag la nekk nit ku ku bàyyi xel boppam ku tey ku dal ku ku koo xam ne man li ma gënoon marqué ci moom mooy il était inébranlable dara yëg ragalul. dara frege waaye nag maa mag moo borom dara di ci wàllu xoox nag te bu soxlaa junj yi kenn dootu ko dàq. dëgg moo tax jom jaak fit baak njàmbaar ga. Mhm. bokkoon na ci li ma gënoon neex ci moom. Mhm. ak situation bi nu mu mën a demee. Mhm. mu seree. caaka biram bi ak risque. ak a bari valeur. ak a doylu. ak a réglé ak a gaaw a regg. aka dem te gestuwul aka ñàkk bëggee gis nga yooyu vertu loolu moo ñu manqué dëgg la parce que dafay suur ba pare mësuloo gis ci gémmiñam dégg mu wax mu wax lu ñaaw benn kàddu boo xam ne moom macha allah yàllaa ko defal boppam jiit dëgg la yàlla moo ko fal te du ko kon loolu dafa jar bàyyi xel parce que kenn ku nekk ak la yàlla may moom yàlla may na ko ci dundam gi mu teral ko ci. Mhm. yàlla na teraa nga am sax. amiin yaa rabbi Diouf na day ci wàllu xoox ma ak Yacine Baba. amiin macha allah laaw na ca Baye Cheikh Makhtar. Mhm. ak Yacine Diouf. Mhm. ak Mbayta Maguette Diouf ak Maada. maa ngi koy ñaanal yàlla mu dund lu baree bari te ànd ak wér. amiin yaa rabbi lu mais un grand monsieur. un grand monsieur très digne. personnalité bari classe. néew yi wax. bu def bu jëlee décision kenn mënu ko cee delloo gannaaw. dëgg la de dafay bokk ci nitu valeur. dafay am kaddu. te nii nag li ma sabal. Mhm. waaw taxoon Senghor seetlu ko. dëgg la âge bi mu nekk gouverneur. Mhm. macha allah ak jaar jaaram yëpp. Mhm. mu nekk nit koo xam ni ku c'est un c'est un c'est un xam nga naka lañ koy waxee sax. un comité de l'administration. maîtriser administration bu baax a baax a baax a baax. te yooyu nag dafa jar a xam. jaar jaar am na solo ci nit de Binta. dëgg li sénégalais a retenir ci bu mag bu armé woon bu ne ci ginnaaw Mauritanie doon bëgg xeex ak ñoom nanguwul guerre bi bi mu paasee mu ne sénégalais yi ay bu ma guerroon donc phrase boobu nag ñu bëri retenir ko ci ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf donc di nga xam lu bëri mama waaye nga wax tuuti am lu bëri loo xamante ne da nga koy dencal sa askan looloo tax souvent ñoom bu ñu paree bind ay mémoire mémoire yi da découvrir ay dëgg yu bari yoo xamante ne bañ ca tolloo ca instant T bi nëbboon nañ ko seen askan lépp rek ngir sàmm Sénégal alors Fatou yow itam lan nga retenir ci ki nga xamante ne mooy Abdou juuf si passage ci bopp réew bu senegal président Abdou Diouf bi mu ñëwee ci euh, li nga xamante ni moo di tête du pays. Mm-hmm. def na fi ay réalisations yu bëri. Mm-hmm. Euh, am na aussi ay valeur ak ay jiko yoo xamante ni inculque def na ko au cours de son mandat aussi. Mm-hmm. Euh, li ma gën li ma gën a kii li may gën a wax. benn message lay doon aussi ci ci ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekk aussi ak ñi nga xamante ñoo fi nekkoon avant nouveau gouvernement bii di ñëw dama leen di ñaax te dama leen di di di ñaan ngalawaay nañu jël nañu roy ci ki nga xamante ni moo di ab juuf li nga xamante ni def na ko ci lépp lu baax nañu seetaat Abdou Diouf démb discours yu mu doon tenir pour lan pour apaiser dëkk bi nañu xoolaat bu baax Abdou Diouf diplomatie bi nañ la ko doon defee au temps nañu xoolaat Abdou Diouf bu mu ci nguur gi ak nu mu doon doxalee ak opposition bi ci juste ci tempérer parce que instant bi soxla nañ ko ci contexte bi bi ñu nek nga xamanteni ñi ngi wax fi ñi di wax jëm gauche ñi di wax jëm droite man dal lool la leen di di gëna di gëna ñaax comme ça ñu ñu jël ci mom yenn jikko ak yenn qualité yi ñu transposer ko. amna solo coach Moussa. ba Binta Abdou Diouf li ngay jëk retenir si mom moy élégance bi. Mhm. ak éloquence bi. Mhm. ak euh, am fit bi. mën gouverner bu ñëk waxuma la sax ministre waaye dañ doon yàkkamti gis cortège présidentiel di la romb ci corniche bi. Mhm. wala li nga ëppoon li nga koy gis 4 avril la wala bésu it. da nga daan gis ku nekk gendarme sax wala homme de tenue douanier rek ci koñ wala policier nga gis ampleur ak grandeur bi ko nit ñi jox. Mhm. su génnee ci koñ bi wala mu génn ci mbedd bi. Mhm. jafe woon na nga gis ay ministre Abdou Diouf. jafe woon na nga gis ko mu latte ci kanamu nit yi. comme ni ko Fatou waxee ak maman Ndak nekkoon nañ njiit boo xam ne demoon na ba di ko dàkkantale moo Elisabeth monsieur Forage ak madam Moulin. madame parce que jamono boobu Sénégal dañ jógee ci mara jógee ci ndox manqué. Mhm. mu def ay forage ku nekk am nga entité boo def mais sa à li ñuy wax les les les les liens ak li am diggante bilatéral ak ñun ni ñu koy waxee noonu. ci mhm. diggante dëkk yi coopération yi. Mhm. daf ci bilatéral daf ci doon jouer rôle bu am solo. nga Sénégal ñu jox ko benn gëdd ak benn représentativité xaw ma nag ci bind bi la mooy élégance wala dara mais bu mu saan di ñëw rek.